xam nga bu ma sañoon man troisième mandat mu tek ko ci souf loolu mom jëru sax mu di ci débat loolu duñ ko may du yoon. man limay xaar ci moom daal. mu prononcé wu clairement que ni vraiment mom dal bàyyi na. pare naa waat mu defaat premier kii troisième mandat. magi dal nañu si dimbali mu xol li indi jam indil jam réew mi mu jàppale ñu mu def ko. je l'aurais conseillé vraiment d'abandonner donc ce projet de troisième mandat dama koy ñaan li laa rasuli mu bàyyi candidature bi le problème du troisième mandat là donc li mu fi indi ci ay jafe-jafe dafa bari donc sur le plan économique nit ñi vraiment le pays souffre

mu def lii indi jàmm ndax moom jàmm ji mën naa ne moo ko yor mooy tànk bi mooy bopp bi. troisième mandat bi de comme tout Sénégalais rek ñun ñëpp ñoo ngi koy xaar di ko xaar avec beaucoup de satisfaction daal di yaakaar ni cette fois-ci dina déglu population bi. waaw puisque dëkk bi doy na waate à chaque fois bu ñu remuer lii rek il y a des pertes humaines te defe naa ne loolu jaru ko moom kenn mënul wax ni liggéeyul kenn mënul wax ni liggéeyul te comme dem na ba aksi fi il est en fin de mandat te li chaque fois buñ ko yëkëté nit ñangi dé dee. troisième mandat mom lolu mom jëru sax mu di ci débat lolu duñ ko may du yoon parce que mom dañ ko far buñ koy fal dañ ko fal mu ne mom ñaari mandat la fi tok du xaar dañ ci téere bind tek wax ci comme mom du yoon muy tok ci wax ci troisième mandat mo xam ci lu mu war a lu mu damé liggéeyam jagg na rafet na dam am ci réew mi jàmm. président Macky Sall sa discours bi nga xam te yang koy waji a don te bërki dembu def nga benn dialogue wala dembu am na nag ay kàddu yo xam jib nañ fa ci maire yoy nga dal ba ñepp kenn ku si nekk xëy ñu ngi am seen mebet pour nga poser candidat mais man lima lay wax man en en tant que jeune moy candidature bi su fekke meuna meuna baña nek nga bañ ko poser moy jamm rew mi. troisième mandat man awma ma ne man dina ko déposer wax ji nak meuna beuri ku nekk wax la wax troisième mandat ne man man Macky Sall dina troisième mandat. ndax bu ko déposé après lii xew loolu may wax après lii xew may wax dina trop nag xam en tant que sénégalais ah troisième mandat mu teg ko si suuf bu ñu ñu ñu ko ñu dem candidat la Sénégal conseil conseil constitutionnel Sénégal nous avons tous le xam nañ candidat 2019 2024 2024 2029. si on avait fait un euh, référendum voilà, une sorte de euh, micro-trottoir donc s'il y a 20 Sénégalais c'est que les 15 Sénégalais duñ ci je troisième mandat ce que bëgg rek ñu wàññi affaire yi ndax ñun lii la ñu am liggéey la ñu am jaay dimbali suñuy njaboot kon du wàññee rek Sénégal gën na nitu jàmm la boolewul dara wax mi ngi liggéey kenn du wax liggéeyul kon du wàññee rek Sénégal jëm kanam ñu ngi ci ginnaawam nag ñun ànd nañoo kenn moom lañu àndal. man mii damaa xeex ndax Macky ba tàyyi avant muy toog histoire naa ba tàyyi te ñi may dégg xam nañu lool man Macky rek laa bëgg deuxième mandat noonu waaye fi mu ne nii tiit naa de tiit naa ndax suñu njaboot gaa ngi jeex ñëpp a ngi ci kaso bi lekkatuñu naanatuñu bu dee ñu dee man mi toog am naa ci bu dee ñu nekk ci kaso bi man mi toog am naa ci bu ñu sañoon daal magi xool yi indi jàmm mu jàppale ñu ci ndax jaboot jàmm ko jig lu waay diwut jàmm ko gën dama koy ñaan li laay rasul yi mu bàyyi candidature bi bàyyi ñi nga xam te ñoo war a bokk ci élection yi ñu bokk ci élection yi ci jàmm on a besoin de ça daal waaw ah, te man en tant que citoyen sénégalais Donc je leur ai conseillé vraiment d'abandonner donc ce projet de troisième mandat. man li may xaar ci mom dal mu prononcé wu clairement que ni vraiment mom dal baye na Baye ñi nga xamni ñoo bëgg bokk yépp ñom ñu bàyyi ku gagné ñu xamni yow la yalla jox nguur gi. puisque mom il n'a plus rien à perdre. li mu waroon def yépp def nako il a fait ce qu'il devait faire li ci dess nak bon nako bayé sénégalais yi keneen ñëw ñu tànn ki leen gënal ñu def. man buma sañon man. sama gis-gis mi Khalifa Sall mi Karim mi Sonko ñoom ñett ñëpp dañuy dem ñoom ñett ñëpp da lañuy bàyyi ñu dem ku mun ku gañe ñu xam ne kii la yàlla kii la yàlla jox ndam moo gañe waaye bu xeñee kii bàyyi kii mu dem xeñ kii bàyyi kii mu dem day indi coow rek man bu ma soñoon da bàyyi ñoom ñett ñëpp ñu dem ku yàlla jox réew mi ñoo xam ne kii la yàlla jox réew mi ñu liggéey pour suñu Sénégal jëm kanam. ma daal ñu waxtaan ba ñu waxtaan ba juboo te lepp lo nga xamanteni ni buñ ko teggé mu andi ay ci dëkk bi andi problème ñu jël ko tek ko dialogue national bi aussi bon man conclusion yi bon xawma ñan ak lan lañ ci génné dégg na bon peut-être ñu ni dina permettre ñi ñom ki ak ñoom ñu révision du procès ak ñi nga am ni purgé nañ seen peine ñu bayé lé waaw lolu aussi dañ koy rafetlu ñoñu bu leen garagé ñu dañuy bok ci élection dañ ñoy yëpp ana sun xaliss suñu xaalis bi ñu sàcc bañ jàppoon leen anamu Karim Wade sax ñu génne ko xaalis bi 2000 milliards la ko doon topp 1000 milliards ñu génne ko yóbbu ko kasaaru pourquoi ñu ne Karim Wade tey bokk ci élection pourquoi ñu ne Khalifa Khalifa Sall tey bokk ci élection pourquoi ñu ne Sonko di bokk ci élection fu ñu teg loolu ñu bëgg ko kale na di bokk ci élection lu mënta nekk ci mim réew élection yi Sonko bokk du ci mim réew sëñ bi facteur bloquant bi ci nekk rek mooy Sonko waaw comme kooku yàlla moo ko may mm-hmm. ñëpp top ci ginnaawam nan nangu loolu lu yalla dogal nit daf koy nangu waaw jéem ko bay mu tenter sa chance peuple mooy décider kenn mënu décider à la place du peuple waaw nako bay bàyyi dem à chance égale ku gagné no xamni yaw la donc il laisse les autres leur chance waaw donc mom li fi def dal il a déjà fait un bilan très positif donc man vraiment je l'invite à quitter vraiment sagement le pouvoir et ouvrir quand même une brèche pour que tous les candidats, Ousmane Sonko y compris, donc que tout le monde ait la même chance que le meilleur gagne.